asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 14 mai 2020 ñëw ak ni ci yëglekaay yi sunu lamb la ni xëy dooreete ko tey yëglekaay bi nag ka mu xëy dalal tey mooy Pape Abdou Fall mi jiite promoteur yi moo xëy daal tey ngardaajoo sunu lamb séq fa waxtaan wu yaatoo yaatu ak Abdoulaye Dembélé Pape Abdou Fall nag la mu wax leer na daal ay kontam daal tey xëy na réglé ko ne na lamb ji day jafe-jafe yi mu am du yenn yu dul ñi nga xam ne ñoo ci ne da cee bëri ñoo xam ne daal honnête defuñu ko ñenn ñi tamit ay mal intentionnel lañu maanaam daal ñenn ñi moom seeni mbir doxalin ba rafetul tey jekkul te tamit jàpp na ne seen intérêt kese moo leen tax di wax waaye nekku ñoo xam moom Abdou Pape Abdou daal report bu mbiram wala mu jóge ci moom Pape Abdou Fall yemu ca de waaye tamit wax na daal lépp am solo daal ba des mooy ñi ciy wax nañu xam ne li ñuy wax nañ ko xool bu baax a baax ndax jàpp na ne loolu nekk na sujet boo xam ne day sujet la boo xam ne daal bu compliqué la boo xam ne bu sensible la boo xam ne daal waras na caa xoolaat cay wax wala ñu ci jël ay décision jàpp na daal ku cay wax war ngaa xool bu baax a baax a wax te itam nekk na mbir moo xam ne daal mu jari xalaat la moo xam ne réflexion moo ca war am bu baax a baax waaye nekkul mbir moo xam ne daal mu yomb la de moom Pa Abdou Fall tey moo xëy ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb waxtaan wax waxtaan woo yaatu woo xam ne daal ku ko ubbi moom da nga gis lu garaaw a garaaw am na leneen loo xam ne tamit wax na ko ci ñoom promoteurs yi tamit war na leen gestu de ndax nag ñoom ay bailleur lañ loo xam ne nii day il faut que état bi nangu nekk ñoom ay bailleur lañ loo xam ne ñu ngi ci réew mi di fi investir te mbir mi tamit dal na bi mu ñëwee dal na seen kaw kon jàpp na ne état bi tamit war na leen gestu jàppale leen bu baax a baax a baax Pa Abdou Fall daal tey xëy na waxtaan lu yaatoo yaatu ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu laam mbër ma nga xam ne nag bëggoon na combat mag ki nga xam ne mooy tafaatin mu far yàq muy Ama Baldé yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom wan ñu ko mu mel ne ki Ama nag yëglikaay bi daal daa jàpp ne day bu doon wala muy carte maanaam daal perte la ndax nag ginnaaw at ma la ñu génn bi mu fi bañee soixante-quinze millions ngir daje ak Siteu ñun déet ne waay a dajewaat ak tafaatin ci combat boo xam ne taxawoon na ba pare diggante mag Modou Lo combat bu fi mu nekk ni lu leer amatu ca moo tax yëglikaay bi jàpp ne day Ama bu doon day carte daal wala muy jula daa mel ne perte moom dal na ko wala mu koy yoot keneen koo xam ne nii moom am na lu mu bëgg ba xëy di ko wane wa wala boog di ko wax mooy ordinateur moom daal nee na li am ba des daal nee na moom numéro un la bëgg nekk ci làmb ji moom Mamadou Faye ordinateur bu ñaaxar lii la xëy tey wax fi nga xam ne moo di sunu làmb beneen xale boo xam ne tamit yëglikaay bi xëy na tey andil ñu ko muy ki nga xam ne mooy Ndiaye Tine rakki tafaatin Ndiaye nag yëglikaay bi daa jàpp ne daal joker ba moom Ndiaye Tine da ndax nag boo xoolee que année balance moom consommé na ko ba pare keneen koo xam ne nii moom amagul combat moom tamit waaye nag li ko tax di liggéey du lan lu dul ay meilleur combat yoo xam ne mooy combat yu baax a baax yi kooku mooy Moussa Balla ba nekk ci écurie ba nga xam ne nii moo di dóor dóoraat Moussa Balla daal loolu la xëy ta wax fi nga xam ne moo di sunu làmb waaye dañ fay jógee nag dem fa nga xam ne nii moo di record record tamit ba mu xëyee tey ñëw na ci mbir Ama Balde na ko sunu làmb defee ci li nga xam ne ni daal maanaam da jàpp ne moom record Ama da koo ñàkk muy perte goo xam ne daal ñaari yoon la ndax nag boo bëggee dégg-dégg saison balancé mu ngay teglantoo te combat yi nga xam ne nii moom la reseté muy tafaatin te digganteem ak Modou Lo tamit daa mel ni loolu moom ak lëndëm moo ci dugg fi mu nekk nii moo tax yëglikaay bi jàpp ne day moom Ama Balde ay mbiram fi mu nekk nii doy na waar perte daal la def doublement record xëy tey ñëw wax ñu lu mel noonu ci ki nga xam ne moo di Ama Baldé waaye buñ fa jógee tamit ba tey ci record dañ fay des rek ndax nag ki nga xam ne moo di Franc yëglikaay ba moo ñu ko toppal 2017 ba jàpp 2020 yëglikaay bi jàpp na ne day lu toll ci 15 drapeau Franc am na ko am ci lu toll ci ñetti defet xaas ba mu ca jot a gagné nag toll na ci 21 millions 50 mille francs record moo xëy tey ñëw toppal ñu lool ci xalima ka nga xam ne moo di Abou Ndour keneen koo xam ne tamit record seq na ak waxtaan muy pakala bu mbuur ci na nga xam ne noonu lay dunde koor gi ak nga xam ne moo di confinement wala couvre-feu bi moom daal jàpp na mu nekk nii moom ci wàllu maxdam la ak yu mel ni ki noonu moom ay wàllum pom ak ay banaana daal ak yu mel ni ki cereeg meew neex na ko ca lool waaye itam ndogu bi daal jàpp na ne moom mburu mu ndaw lay lekk moo xam ne day ànd ak bër ak lu yema yema yem def trente minutes yoo xam ne sport la koy ci jógee nag door a continuer lekk bu baax a baax a baax moom paka la jàpp na ceebu ginaar tamit ak yeneen yu mel ni ki noonu xeet yooyu la yoo xam ne daal neex na ko moom paka la waaye bu paree nag mu nga ca tele ba wala ci youtube ba di xool ay yoo xam ne daal dina ko mën a wétli bu ci jógee itam day dal di daal bu yeewoo boog ba julli fajar moom pakala la muy def mooy dem ca géej ga mot li ay activité am loolu mooy wax ki nga xam ne moo di Aliou Faye tey fi nga xam ne moo di record ba tey ci record boobu nag buñ ca desee li olof yi di wax daal àddina amul solo loolu daa mel ne am na fa ndax na ginaaw Modou Lo bi mu perte way juróom yëglekaay bi di record xamal nañu ne ki nga xam ne ni moo di Aziz Ndiaye dem na fa jaale ko ànd ak nga xam ne moo di Elimane Lam waaye ki nga xam ne tamit mooy Yaxya Jóob Yékini te fu toll fu muru toll ni mooy sama idol moom itam sol na aw dàllam dem jaale ji ka nga xam ne moo di Modou Lo ak ka nga xam ne nii moo di Père Sagne moom tamit jaale na ko waaye ka nga xam ne moo di Doudou Diagne Diecko tamit président des amateurs moom tamit dem na jaale ko mu mel ne ki daal kon àddina amul solo adversité bi bu jotee day saf waaye bu jeexee jeex na te nag olof a ko wax ñu bokk teen ñooy laxasoo ab goj mel ni ki loolu rafet na di ñaanalaat mut loo way juróom woowu yal na ko yàlla yërëm te jégal ko bi baraka rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñu suivre ci Leewtoo TV tey ni ngeen ko xamee nag tey la alxames maanaam jeudi tombé 14 mai 2020 yëglikaay bi di sunu làmb fi xëy ñëw tey dalal Pape Abdou président des promoteurs moom nag tey wax na waa maanaam yëglikaay bi ne Pape Abdou Fall solde ses comptes maanaam daal mu mel ni ki tey wax na li nekkoon ci moom génne na ko ak waxtaan wu yaa waat yu yaatu woo xam ne seq na ko ak Abdoulaye Dembélé mel ni ki daal moom doxalinu làmb ji actuellement jàpp ne li ko téye ay nit lañ yoo xam ne yu mal intentionné yoo xam ne daal seen intérêt bopp leen tax a jóg waaw mbirum Alioune Sarr ñëw na ci këni lu ci waaye di wax nanga ko xam parce que question bu sensible la kon nekk nay mbir yoo xam ne daal ñëw na ci tey moom Pape Abdou Fall ak mu jàpp ne état war na leen ko tàllal loxo ñoom promoteur parce que ay bailleur lañ effectivement wax na dëgg parce que tamit dañuy investir xaalis dugal seen alal si làmb ji kon defe naa bu mbir mi demee nii tamit bu ñuy gestu askanu réew mi war nañoo bokk ñoom si ñuy gestu wax dëgg yàlla li des nag ci waxtaan bi yaatu na yaatu goo ne daal tey ku ubbi moom loo bëgg a xam li mu wax da xam moom Pape Abdou ndax waxtaan moom ak Dembélé ñoo ko seet sunu làmb ba tey yëglikaay bi ñu ne ci Ama Baldé boo xam ne tamit jàpp na ne daal moom ah boo xoolee daal ay affaire am doy na war ndax nag koo xam ne année bële passé at saison bi ñu génn recette na soixante quinze millions xam ne fayoon nañ ko ko ñu di nooy diggante mag tafaatin ñu dem ba ne taxaw na

Kële mi nga gañ ci diggante diggante ma ki nga xam ne moo di Modou Lo actuel roi des arènes. gis nañu ay xale yoo xam ne tamit ci biir yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb muy Ndiaye Tine rakku Tapha Tine Moussa Balla Gaye bu dóor dóoraat ak a nekk numéro yi wax Moussa Balla Gaye mu ne ne combat yu baax yi la bëgg bëri waaw yu yi yu bi daal loolu la xëy tey wax mel ni kon tey sunu lamb loolu moo nga fa ku ko ubbi di ko fa fekk ba tey bu ñu demee recours tamit dafa mel ni mbirum Ama tamit recours xëy na ñëw ci koo xam ne dafa la jàpp ne moom dafa doon maanaam dafa perte doublement daal parce que diggante ak Tapha Tine diggante ak Modou ba tey mooy loolu tamit ñëw na ci jàngatu Abou Ndour waaw Ama Baldé daal ay mbiram kon tey ñaari journaux yëpp ku ne xëy nga wax ci franc boo xam ne tamit yëglikaay bi topp na ko entre 2017 ba 2020 21 millions 50 mille francs yoo xam ne gagné na ko ci ne Ah, paka la tamit bu mbuur boo xam ne ñëw na ci di muy woo rek yeeku gënal ak yooyu yooyu wax na la mu koy dundee ci waxtaan boo xam ne na ko waa mbuur rafet kon te nag defe naa loolu su ko defee tamit war na koo def du jàncee ko kazalika na noonu naka noonu yikki ni noonu parce ñoo ko Modou ñoo bokk milieu bi te ku ci nekk rek lii ngay xaar sa moroom bu bés jotee moo xam naqar wala bànneex di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaale internet yëpp di balu ñëpp ak waaye di waxat que ni rek état du Sénégal nañ ñu dimbali ci mbirum dund bi ñuy joxe nañ ko jox ñi ko yeeyoo ndax nag dégg nañ ci ay coow yu bare bare bare ci ñoo xam ne tey dañ dañuy maanaam nekk ci kër ñu bind fa lu mat juróomi di bind bay bind ay mbindaan yooyu defe naa bu dee am na lu ñaaw la te du lu war a mën a ne kon nañu xool bu baax a baax ñi ñu koy jox balaa ñu koy jox ñu ko moomul ndax ndimbal ca ka ko yeyoo loolu lañ leen di wax di ñaaxaat ñëpp di ñaan yàlla corona bi yàlla na ko fi yàlla jële barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wa di bég ci internetu Leewtoo TV yëpp à travers le fu ñu mën a ne